di nuyu di nuyu kilifa yi fi teew ci jiital sëriñ Aliou Mbacké Cheikh Amadou Fadal ak sëriñ Serif di nuyu sëriñ Cheikh Fatma mi nga xam ne moo initié jataay bu am solo bii di loo xam ne ñëpp la war tey lu am solo la day farata kon su fekkee ne tànn na lu mat ñaar fukki ak juróom-ñett zulsité ci mbooloo yi nga xam ne xam ngeen ne seen liggéey weesuwut taxawal diine ak wane njàngaleem sëriñ bi te loolu kenn jiituwu ci daaira muqaddamatul xidma bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk jumaaji te biir wax yi ñaaw yooyu nga xam ne mi ngi koy wax moom Omar Diagne moomu xam na li def parce que day dàkk yi nga xam ne moo gën a symboliser ci yoon wi xam na ne jumaa ji bokk na ci yi nga xam ne dañ ko def ci seen xol moo mu wax ci lu ñaaw kon daaira muqaddamatul mi ngi ci biir mbooloo moomu ànd ak kuréel yi muy daaira al wafa daarul moxti ngeen xam leen ñoom it ci tisaare njàngalem sëriñ bi académie minan bu daarul minan ayam muy association des écrivains mouridia muy borom xam-xam yi nga xam ne dañuy bind ci langu nasaraan wala langu bu mën a doon ci fànn yu ñoo ñëpp ñu ngi ci biir mbooloo mii nga xam ne ñooy signé lii nga xam ne moom lañu fa yéenee jébbal njiitum réew dañuy jàpp ne nag xëy na ki nga xam ne moo jiite réew mi bi muy fal kii nga xam ne xëy na xam nañ ne nit fitna la wala waa musée bi nga xam ne ñooy saytu ak sàmm ndono yi nga xam ne sëriñ bi bàyyi na ko fi te sëriñ sërif mi jiite ko ñoom it dugg nañ ci biir moroom kon li sëriñ Seex Fan ma wax rek ñun lañuy ñuy baamu dañuy jàpp ne bi mu koy fal xëy na trompé na ci ndax ku mel ni nga xamne day yeefin na ci réew kenn du ko dugal ci biir ab palais kon loolu moom responsabilité yi warees na ko cee jël beneen bi nag diggante touba wala wala yoonu murit jàpp naa ne état bu ko am do jéem a xool lu luy karajal seen diggante ndax fii lañ gis fekkee liiru luñ ko archive yi sagam mi ngi pale fii lañ gis état sénégal di def conseil des ministre fii ci réseau fii la dal képp gouvernement bépp Touba leen dalal kon suñ dee réviser lu mel noonu xanaa dañoo fàtte loolu ci jamonoy colonial ya ba léegi sëriñ Touba bi France jaaxle moo leen dimbale Cheikh Mouhamadul Mountakha mii wala Serigne Sidi Muxtaar mën nga ko cay tàmbalee moom lañ gis mu génne un milliard def ko ci Covid te war-waru état la kan moo doon jaale ji ak massawu ñi nga xam ne ñoo faatu ci xeex bu metti bii nga xam ne. ci la Sénégal yi jëlee naqar wi fal état bi tey suñu Seex Amadul Muntaxa mbënd mi ak réew yi nga xam ne ñoo wër Sénégal ku ci am jafe-jafe kon ku mel noonu nga xam ne kenn deful leen dara suñu borom rek la ñu wéeru ci la ñu wàkkiiru Sëriñ Tuubaa kenn ko dara kon ku mel noonu kenn wërta fat koo xam ne day wax lu jëm ci di ko karajal kon nag loolu jàpp naa ne danañ ci jël seeni matuwaay kon kuréel yi nga xam ne daal dañuy lëkkaloo di liggéeyal sëriñ bi ñu ngi ànd bu baax a baax a baax di ko xeex di dénoncer di ci andi nak nag saa su nekk ma sa su suñu woté wala sa lu xew kurel yi ñi ngi ci biir ngir and ko ak Serigne Cheikh Fatma ak ñi nga xamné ñom lañ ko andal ndax Serigne Touba mom deug la waxna ci madlawul ne wa kullu man satamani aw lama fa hawlahu tawbata wa istislaama gàttandu na gaaw di yërëm ki nga xam da ko ngagn wala mu mu mu di ko wax lu bon di ko ñaanal ak mucc waaye fa kullu man asaa sannahu biya fa li yaqallib qalbuhu ya rabbiya ñi ñaaw njort ci moom it ñu ngi leen di ñaanal seeni xol di wëlbatiku waaye ñun ñi nga xam ne nag amuñu lu dul moom lu luñ gis luy jëm ci moom comme moom ni mu daje ay coono ngir ñun ñu war nañoo daj ay coono ngir sàmm ndono lii mu fi bàyyi loolu jàpp naa ne kon murit yépp la war rawatina taalibe yi waaye rawatina ku nekk ci tuubaa gii di fi dund asalaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu